yéenekaay bi ne Ousmane Sonko la mu def mooy rafetlu Amadou Ba génn gi mu génn ci xeex yi mu doon yóbbante fas yéene dëggal boppam ni ko nag kaay ma may la occasion bu gën lii lépp mooy ñu janook askan wi ci débat public boo xam ne man ak yow ñoo koy séq nga wax leen dëgg gi wax leen itam sa responsabilité ci li xew ci koom-koomu Sénégal enquête ne Sonko kay défier na Amadou Ba Amadou Ba mooma Vox Populi ne tontu na la ko Ousmane Sonko tuumaal waaye am na conscience tranquille maanaam amul lenn lu muy mere boppam gannaaw tuuma yi Ousmane Sonko yooya leneen lu ñu ko yàgg tuumal te mu weddi ko mooy milliardaire la nañu fësal lañ doon fayeeku ci seen carrière yépp fësalaale itam ay yosam ndax mën nañu ko am mu teg ci ne moom xam na Ousmane Sonko xam na waajuram xam na itam ay mbokkam te xam na ne li manqué Ousmane Sonko tey mooy wax ak moom Amadou Ba su saane Ba moom a démb dal na ci kaw Ousmane Sonko weddi lépp lépp lu mu ko tuumal le témoin ne Amadou Ba kay daa solde ay comptam démb jëm ci élection législative bi wax na itam ci tuumay alal ju bari ji ñu ne daf ko am ak manipulation statistique a baaraam mu ne nag gouvernement bi fi ne pilotage à vue lay def maanaam dañuy làmbatu rek boole ko di digge digge yoo xam ne duñu ca def dara kàddu yooyu mu yëkkati démb nag point yàccu la mu gis mooy Amadou Ba fi ne assumé ne chef Ousmane Sonko teg ci it ñaawlu fitna laateeg xoqalaat bi nguur gu bees gi nekk mu ne menace intimidation ak division loola la ñu nekke te ñu leen doon xaar ci boole askan wi waaye itam fexe defar ëllëg goo xam ne ëllëg gu mucc ayib lay doon ci ñëpp ëllëgub Sénégal nag ci vision 2050 Amadou Ba ne lëndëm kurus la def ndax projet booba moom borom nouvelle responsabilité ci le quotidien ma nga naan du jëme fenn Sénégal mënu koo yóbbu ci développement di suqaliku lise ko ne Amadou Ba yemul ci jomaa yeeg Sonko projet ndax dal na kaw Macky Sall dammate officiel bi nee na sénégalais yi tey xam nañu kan moo trahir kan lu jëm ci am amam ak bu Sonko Diomaye nag Amadou Ba nee nañu publier maanaam nañu fësal liñ nga yedd Ousmane Sonko naan a du fi ne rek di tuumalaate finance publique yeeg lañu ko ci tuumaaloon réew mi quotidien ne Amadou Ba ragg na caw deram ba set njeextalu yooyele kàddu yu Ousmane Sonko yëkkati woon nag doon xamle ne dañoo falsifier finance publique yi boobaleb journal xamal ñu ne gannaaw Moody's itam dégradé nañu notu Sénégal maanaam wàccee nañu ko waxtu woowu njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye fixé priorité am ci wàllu transport l'info mi nu ko yeggee ne moo doon jiite ubbiteg états généraux des a transport secteur bu la soleil gis ne ci tëgguwaat la nekk saa ne yéene kaay booba dellu ci états généraux des transports publics république yi président Bassirou Diomaye Faye jiite démb journal bi ne ca ubbite xew-xew boobu président de la république sàkku na ci acteur transport yi ku ci ne xoolaat sa bopp yokkaat itam responsabilité ci la ngay liggéey yéene kaa bi ne waxtaan yooyu ña ngay xaar mu jur ay conclusion yu ama am solo yu mën a yóbbu Sénégal ci coppite wu rëy ci wàllu dem ak dikk Bougane Gueye Dany ma bëggoon dem Bakel te ñu teg ko loxo yéene kaay bi di la solo ak yeneen nemmeeku démb bugaan mi fanaan kaso bi ca la mandat sàmm sa kàddoo ngay sàpp ñu bàyyi ko ci nu mu gën a gaawee laas nañu fanweeri fanweeri octobre lañu koy àtte ca tribunal flagrant délit bu Tambacounda journal bi ne waaye fi ak booba bugaan na nga ca kasob Tamba kaso googa nu ko yóbbu rek tribune la mu ca gis mooy kurpeñ gu rëy gunu dóor démocratie bu Sénégal ca boobaleb journal Barthélemy Dias naan nguurug mi moo jël otage bugaan gay dani ndax diggante lëndëm ak leer journal bi yéggee ñu janoom ak procureur ak guddeem gu njëkk ca kaso ba nu mu demee Déthié Fall moom demoon na seeti Ousmane Sonko moom njiital PRP moo xam ne njiital Pastef bi ne gannaaw fas naa yéene dajeek taskatu xibaar yi journal bi ne la ca nar a def mooy tàggatoo ak Barthélemy Diaz ak ñamu àndaloon ca seen coalition ba di sàmm sa kàddu point actu sax woowa laaj la samp ne ndax Déthié Fall daa nar a waa sàmm sa kàddu a coalition sàmm sa kàddu gannaaw ba ko Ousmane Sonko dalalee démb ci xët njëkk Sud Quotidien tey université bu Ndakaaru la ñuy waxtaane yéenekaay bi yéegee ñu jàppante yam diggante étudiants yeeg force de l'ordre maanaam takk der yi waaye itam grève SAES yéenekaay bi dajale lii lépp ne rentrée bu ànd ak pression la docteur Abdourahmane Diouf ca booba lépp journal di dalal xelu SAES ci publication décret bi soxal retraite enseignant chercheurs yi ne woon weeru février ba weesu jëm ci pension de retraite enseignant yi ak enseignant yi génn àdduna journal bi ne SAES di syndicat ëmb jàngalekat yi ci daara kawe yi dañoo xaatimoon ak njiitu réew ma ak seeni pension de retraite yéeni ne waaye ba nguur gu bees gi ñëweeg léegi mënta fexe ba doxal yooyale accord loola naqadi jàngalekat ya nag ba ñu soobu ci grève ñaari fan wote itam ay assemblée générale ci campus yëpp àllarba ñaar fukki fan ak takk der yi yoor yoor bi yeggee ñu jàppante gi xaw a am démb diggante Barthélemy Dias ak goney Ousmane Sonko yi journal bi ko loola naqari ko ba muy daggi saaga ne ko ma waxati waxi Ousmane Sonko ma def noona Macky Karim ña toog moom gis ne Augustin Senghor ubbil na buntu Hervé Renard ngir wóotu Aliou Cissé ca boobaleb journal njiital fédération sénégalaise bu football ne Habib Beye ak Omar ay sénégalais lañu waaye waaye Hervé Renard mi dëkk Sénégal nag mu teg ci ne danoo war a jël temps ngir xool ki gën ci équipe nationale bu Sénégal ñu tànn ko ñu des ci Les Échos mi ñuy xamal ne Nabou Leye sàkkuwaat na beneen bàyyib ne Nabou Leye daa jàpp ne amul lenn loo xam ne mën nañu cee teg loxo ba tuumaal ko mbaa ñu yóbbu ko ca kaso bornage ba ñu amal ci téléphone am ba sukkandiku ca teg ko loxo Nabou Leye ne enquêteur yi dañ juum juum gu rëy ndax dañoo jaawale 12 heure ak minuit ngi leen di ñaanal ñun kenn dal ak jàmm